¡Maculaca! Thank you. bëgg ki fer man la awa ama doomu ama balde eh woo ngeen naar na ci buuxum soow dañuy gënante ba mu neex eh pour missile eh pour missile day egsi ba mu neex xaalis bàyyi suñuy activité yëpp ñëw mais booy xam rek c'est que nit ku ñuul moo xamul noos gis na ni ngay sëxatee nit ku ñuul xamul noos ñu bàyyi lépp ñëw pour soulager noos ñu fiy dóor ay pompe à gaz mais lan la yéen yi lan la soxor la mais ay ay defeyaan rek ay noon Sidi Sidi xam na lépp Sidi mais Sidi xam na lépp parce que wax na ko lii lu lii lii lu mun a ñàkk la quoi gars dañoo ñëw pour soulager. Euh, gis ngeen mbokk yi euh, li nga xam ne moo xew fii ci Five di soir Sidi Diop bi nga xam ne moo amoon fii tey euh, gis nga pompe à gaz ci biir Sidi Diop moo nekk noonu moom la ñuy rawale noonu pompe à gaz dañ dóor ci biir soir bi soir bi tas seen nga Sidi ngi noonu moom la ñuy rawale noonu. Sidi la ñuy rawale noonu seen nga noonu ci biir mooy ful boobu noonu ngay seen Sidi ngi noonu ci biir. seede nga noonu ngeen di séen ci biir gars yi pompe à gaz lañ ci biir soirée bi seen nga noonu séen nga ko noonu lu nga noonu ay fan sam nag ñu nga aalu siidee ngi ni siidee ngi ni mu ngi noonu ñuy rawale séen nga noonu Omaro la ñu seen noonu mu ngay aalu moom it ci wet ga kooku nuy seen ci ci mu summeeku noonu Omaro la Omaro laa seen noonu ci biir muy aalu mu ngi noonu ak Ketchup kooku Ketchup la Ketchup a ngi noonu tamit ci wet ga laa la illallaah soirée Sidi Diop bi nga xam ne moo amoon fii tey ci faay àjjuma tey ci àjjuma ci seen nga noonu mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu ñu wër si dee ngi noonu ñu wër. waa buur buur lii noo ko gisee. non doy na waar doy na waar. xoolal xale bi niñ ko def buur. buur xale bi niñ ko def tey loo ci wax. gis nga si dee ngi noonu ñu yëkkati. mu ngi noonu ñu yëkkati. si dee ngi noonu ñu yëkkati. dégg nga gars yi ñuy wax si dee ngay jooy. si dee ngay jooy. si dee ngay jooy seen nga ko noonu. gaa yi fam nañ ko ànd moom di dem gaa yi nañ ko ca kaw dëggal gaa yi li ñuy wax. ndeysaan dégg nga lii dégg nga loolu yaram daw yaram daw na yaram daw na seen nga gone gi na ko gaa def seen nga dooraat nañ dooraat nañ beneen dooraat nañ beneen. saa bul dóor kooku gis koog kooku seen nga loolu dégg nga dégg nga daa mel ni am na kun koy jiñ daa mel ni am na kun koy jiñ lay lay la laaw daa mel ni am na kuy jiñ wax ji wax ji day mel ni am na borom seen nga Sidi noonu Ibro Naajo ñëw na Ibro Naajo ñëw fekk si ko Ibro ñëw fekk si ko kooku Ibro naajo la seen nga Ibro noonu seen nga Ibro moom it xol lay waxee Ibro di xaritam di doomu ndayam seen nga ko moom it mu ngi noonu ma ngay xataraayu jëm ca Sidi Diop Ibro naajo ngi noonu xataraayu jëm ca Sidi Diop. si dee ngi noonu ñu dugal ci oto bi di ko rawale si dee ngi noonu ñu dugal ci oto bi di ko rawale si dee ngi noonu ñu dugal oto bi si noonu mu ngi noonu mu ngi noonu ñu dugal ci oto bi seen kooku noonu si dee ngi noonu ci kanam oto bi mu ngay jooy jooy yi métti mu ngi noonu ci kanam oto bi di jooy jooy yu métti gannaaw bi nga xamee tas nan soirée ba dóor fa ay pompe à gaz seen ko noonu mu ngi noonu dem si dee ngi noonu dem li mooy li nga xam ne moo xew fii tey Ibro ngi noonu Ibro Ibro ngi noonu Ibro seen nga toomee Ibro Ibro ngi noonu di dem coow li bari na fi coow li bari na tey fii ci soirée bi nga xamante ni soirée Sidi Diop bi la amoon fii ci Five nga ne ñoo sénégalais ñoo soxor lu tax ñu jël pompe à gaz ko dóor soirée di ko yàq. mais lan moo waral lii. rek. billaahi mais Sidi day dem. Omaro Omaro Omaro tey loo wax ci lii. mu ngi noonu naa wax mu ngi moom it tàllal ko mu mataar a ngi noonu Matar Subatel Matar Matar loo ñuy wax ci lii. Matar a ngi noonu moom mi xam ne mooy euh, directeur général Subatel. Subatel moo fi nekk cooli cooli yow. kooku mooy Subatel.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 tur rek day chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. wow, c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm incha allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. ce liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. wow, Dakar instant nag mom. ñoom danoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu bu ma yeewoo information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant na fi instant. Dakar boo yeewoo. moom laay seetaan.